jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaara làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte janoog yéen wala niñ ko daan defee saa su ne mbokk yi le 4 janvier bi passé 2020 kii di yu daali ñu ngi daf ñoo woo fële ci stade Jom Iba Mar Diop boole ñaari ndaanaan kenn ki di Thiély bu plateau ak ki nga xamante ni mooy Agogo mu sàkku xam-xam mbokk gis ngeen lépp loo xamante ne xew na fa ci làmb waaye wasaara làmb lépp lu ngeen bëgg noonu lañ leen koy defalee ci anam bi ngeen ko bëggee moo tax ñu dox leen ñëw ba fii Colobane seet ki nga xamante ni mooy Thiely xool nan la dundee victoire bi ak ay mbokkam ak ay am di jàmmam balaa lenn di xew damay bàyyi Thiely nuyoo su ko defee ñu gën a wéyal waxtaan bi Thiely maa ngi lay nuyu. maa leen di fay. maa waaw maa leen di fay maa leen di fay. Euh, comme ni ñu ko waxee rek ginnaaw bu ñu sant yàlla junni ci yonent bi sant suñu ñaari waajur Euh, di leen sant quoi ci déplacement bi ngeen def ñëw fii xam nga di sant aussi xama nga suñu gars yi ñu fi fekk suñu grand bi Ndongo Sène ñoom Pape ñoom moom waa gars yi ma àndal ñii xam nga di leen sant ñoom di leen sant bu baax a baax ama ak Art Collection xam nga di leen sant quoi di sant gars parce que xam nga combat bi dañ see jàpp bu baax a baax a baax. waaw tey moo tax ngeen woo ma ma leen fekk leen ma Colobane pour ñu defee fii émission bi xam di sant waa Ñaatali waa Bentali xam waa Grand ak waa Bawal gépp bàyyi kenn maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw. Thiel ndam neex na de. waa ndam neex na ndam neex na ndam moom neex na trop waaw wax dëgg yàlla ndam neex na trop. avance agogo kañ nga ko jël. waaw avance agogo ma ko jëlee yaagul. waaw. def na ay ñaata weer. non même pas ay un mois rek. ay un mois waaw parce que gars yi yàgg nañu ci démarche bi quoi mais fi ma ko jëlee presque ay un mois yooyu laa ko jël. yow yaa ko bëggoon wala euh, kii Idaly moo la ko proposé. waaw promoteur yi ñoo ma ko proposé wax ak moom mu d'accord ne na ñëw xam nga jël naa waar bi wax lu ne après ci la nu ma ci la nu ma contacté euh, man ma d'accord ne leen amul problème moom bu pare rek pare na waaw. moom mu pare nga pare làmb ji daje. waaw làmb ji saaj. kon dafa meloon ni ku bëgg ku la wéttali la ak ku bëgg ku ko ku fu mu fanaan. ubal bunt bi du leen boole. waaw noonu la demee am na foo am na foo xam ni mu demee la quoi mais tey euh, daaw ni ma feeñul ci làmb ji moo tax mais maa ko du làmb booy xool man ñi ma war a bëreel ñu ngi fi waaw. ah mais balaa loolu ñu ñëw ci làmb ji Agogo moo la njëkk a dugg si stade mais keroog bi nga ñëwee da dugg si ci porte bi rek toog ci ginnaaw enceinte bi toog lu yàgg yor ay guro dagg def ci suufu saako bi daggaat def ci suufu saako bi daggaat def ci suufu saako bi doo ko jug jiital sa tànk di joor lu waraloon lool. waaw loolu yëpp euh, loolu lam la rek lam la waaw. Hmm. waaw Joal ni ñoo ma ko jox ñoo ma jox loolu. waaw waaw Joal ñoo laa ngeen boo. Oh. waaw Joal laa ngeen lan nga doon moytu ci agogo lan nga doon moytu ci moom. agogo aw ma lu may moytu ci moom du bëre du xeex du dara aw ma dara lu moytu ci agogo ma déplacé ci agogo dama yab. bi ngay bëreeg agogo moo nekkoon sa ñaata combat. bi may bëreeg agogo moo nekkoon sama quinzième combat waaw waaw quinze quinze quinze quinze waaw. waaw maa ngi ci 10 victoire xaw ma 14 xaw ma 14 la yaakaar naa 10 victoire 4 défaite waaw. comme 14 combats 15 sax 15 la. Ah. waaw 15 combats la. waaw 4 défaite. nga bëreeg Agogo daan ko noo ko noo bëree avant tout noo bëreeg Agogo. waaw Agogo mu ni ma bëreeg moom noonu kat euh, mbër moo xamante ne nii nag waa day sàcc ci suuf. Hmm. boo nekkee boo nekkee koo xam ne nii nag euh, da nga entraîné nekk ndaama. xam ah, nga njool moom pour bu la féetee suuf rek pour mu sàcc la lay yom quoi moo tax ma ñëw wàcc samay tànk donc uti ci kawam xam naa ne du am dara lu muy def leen lay def sànni daw song wala mu ñëw wala mu yooru ma jàpp ko te noonu la mën a def mais man ta def leneen looloo tax ma ñëw dox ci kawam imposé ko xam naa ma ko jàppee yàgg-yàgg day bàyyi ma ko jàppee même bu daanu yàgg-yàgg dina bàyyi ko te dinaa ko daal parce que maa ko dàq ba mais combat bi yàgg na parce que du prib dip da ngeen a lu yàgg yéen ñaar lu waral mu yàgg boobu. waaw mais noonu la mais noonu la xam nga tey booy xool sàkku xam-xam la nekk. ay kàngam ñoo ko yor quoi te tey may seetaan ci lam père Birahim Ndiaye na bu baax yàgg lam kon boog ñu ko conseillé am nañu ko jox yoo xam ne parce que ay mbapat ñoo ko yor te yàgg na ñu may seetaan. waaw mais noonu la yàgg yàgg xam naa xam naa ne yàgg yàgg day bàyyi quoi. Hmm, parce que maa ko koofu. ban la def ba nga daan ko agogo. ba erreur la def. non deful erreur parce que booy xool bi tante naa ko ñetti yoon. bëgg a jàpp ci ginnaaw ngem li mais mënu maa jàpp ci ginnaaw. parce que moom boo xoolee lam ji man bi ma xasee ba jàpp ci ginnaawam entraîneur sax ma jàppee ci ginnaawam xam na ne lam ji jeex parce que boobu pivoté na ne nii bi fi mu toog. xam na ne fi agogo fi mu toog bi ma jàppee ci ginaaw ngem li xam na ne lamb ji jeex na parce que bu ma ko sànnee mu dem ba fi ma jàpp moo baax. Hmm. fi nga jàpp dafa ma jàpp moo baax ci ginnaaw ngem li laa jàpp. foofu ma su ma ko sànnee day dem bu ma xam ma bal naa ko ñetti yoon. dóor ko mu échec. mais bu ma jàppee ci ginnaaw ngem li la entraîneur bi xam ne dinaa ko daan. bu ma ko jàppee dama koo xool gis ko ni mu def action bi mu def rek mu xam ne bu ma ko tuuree dina dem. ci laa ko sànni mu dem. ci biir benn action nee naa Agogo bu leen ko gis ni mu toll ngeen jàpp ni amul doole bi may wax instant boobu moment bi ma koy wax nga dóor ko caxabal caxabal bi mu résister résister résister ba sonn lu tax caxabal boobu jàllul. waaw caxabal boobu ñi ko mos a jéggi bariwul. Hmm. kon moom du ko jéggee ndaanaan la. te caxabal boobu dan dan naa dem mbapat ba ñëw ñu bari ma leen di daane tournoi. caxabal booboo leen di daan te ma ko dóoree da jéggeen kon moom champion la. Hmm. xam nga ku dem koo xam ne nii champion yi fi ub yi fi ub mbapat yëpp presque moom booy xool da moom moom daan na général bu Malika ak woo daan ko wax na ko keroog kon leer na kon champion la mais nag champion daa dajeeg daanaan xam nga bu dajeeg daanaan moom foo laa waa wàcc waaw daa dajeeg daanaan quoi. ndaw ci lamb. non ko ndaw ci lamb mais dafa dajeeg loo koy wax Agogo. non li ma koy wax dara mooy mu bañ a décourager waat rek entraîner waat ñëw defaru ñëwaat xam ne daa bokk ci lamb quoi lamb da ay supporteurs am ko. waaw nga defar waat rek nga waat bokkaat ci course bi loolu dara ku bëre yaay daanu. bi nga jugee ci ago agogo foo jëm daan nga agogo fan nga jëm. daan naa agogo gaañ ñaa ngi fi euh, kii ay ñoom Tafa ñu rëyu laa mel ñooñu yëpp. xam nga ci defet la jógee moom sax bu ñëwee ma do dolli ko ci. rek parcelle bi. barke Serigne Bamba. nga xam ni génn mer la fanaanoo. Alioune Seye Junior. meen mi daan Tafa Mbër. ñëwee ma defaral ko. eh Thiel ñooñu damay ragal ñu suqi say laaf dootoo naaw. na ko daan defee. ñooñu man ñoo suqi samay laaf ñooñu dañoo tuut te sama suqi samay laaf ay ragal lañ duñ la jël. gars yi ku la ci ba benn yoon mbapat wala ñaari yoon mbapat rek boo waree ko saawaate gi day bañ. looloo a yàggal mbëri ñi nga xam ne dañuy def mbapat. looloo leen xaw a yàggal seen carrière quoi parce que gars yi dañ leen di xaw a moytu quoi loolu moo tax. mais dafa mbër nee na keroog buggul di sax bëreeg ay ay mag parce que nee nañ ay mag lay jël xale la bëgg xale bu saf sàpp mais yow xale bu saf sàpp nga. dafa am bër ragal la man xale bu saf laa kañ la fi ay mag rek la fi kan la daan wuli la fi daan. Euh, ak faar fii la dafa gee de paa bi ak faar faar waa bi kooku paa la. ban <laughs> ay Thiel yaa ngi attaqué ku bët bis. dafa am mbër. noonu ma dog jox ma dogli ko. moo Alioune Seye ku baax mu ngi lay xool wax ko Tapha Mbeur mu ngi lii di la xool. Tapha Mbeur bu parcelle. ñëwal ma dog li la ay paa rek nga fi daan. wuli nga fi daan ak Tapha Gueye 2 boo ñëwee ma dog li la. Alioune Seye Junior. waaw kooku nag dama koy jàpp sànni ko moom dama jàpp sànni yalax yalax laa ko sànni ko ay mbokkam na ñëw. dama neex. nga ñëw fii toog sa place grand ñu lay jox ngay toppatoo sa kii di sol lu rafet di lekk lu neex toog fii di di di dëkk Tafa Mbër wa. Serigne Bamba bu may wàccaat ci état bi poids bu garaaw ngay gis doole bu wér peñ état bu garaaw ngay gis barke Serigne Bamba xaaral ma may dugaat état. Euh, agogo. Thielé am na doole est Agogo bañ am doole. Agogo am na doole ne moom koŋ. Ah, am na doole am na expérience. dafa am loo xamante ni maa ngi ko doon wax sëñ Bas ma ni sëñ Bas boo ma jege woon ma wax la ci làmb ji loo xamante ni du deñ damaa gis dugg si bi rek yéen ñaar ma xam ban mbër mooy ñàkk ci combat bi. waaw waaw loolu la parce que am na ñooñu day dañ xam nga boo yàggee ci làmb boo ñëwee mbër bu dugg see nga xool ko rek da xam ne kii dafa pare waaw. moom ma laaj ma lan moo tax. ma wax loolu lan moo tax nga wax loolu. da ngaa bàkku dégg ci bàkku bi. ma gis na nga bàkk ma xam ne Thiely mii mu ngi ci mu ngi ci kombaam ci bàkk bi dégg nga ànd nga ak tëggkat yi mais Agogo bi muy bàkku dafa réeroog ay tëggkatam tëggkat bi janaxe na Agogo ci boppam bu weesoo papkar Kar euh, nu mu tuddati bu weesoo ndongoloo mi nekkoon ci wetam ak ak ak Pape Kargo euh, moom moom ki nga xamante ne Agogo bàkk bi bokk ci woon nekk te dama seetlu. am na gàllaaj bu mu doon takk laapataake la bu bees tàq mais daf koy seere rek mu dagg tip boobu lan la mist sa mystique yee garaaw wala nu mu demee. ah en tout cas ah est ce que du ngem ah waaw du du mën naa am mystique la mën naa am du mystique daal mën naa am mu nekk mystique mën naa am itam du mystique waaye même Ndongo Lo moom ko dar ab ragal la. fii la ñu dox sama combat ak moom. doo duy caaxaan laa lay wax. ay tey dégg naa dëgg. fii la ñu dox sama combat ak moom mu ne du bëreeg bawal bawal yi. barke Serigne Bamba. mu wax ko sama combat mu ne du bëreeg bawal bawal yi dem jël kéwél. bëreeg bawal bawal. du bëreeg bawal dem jël këwel. de loolu génnewu ko. waaw moo ngi noonu génnewu ko ci. ku la joxoon avance Ndongo Lo nii nii nga jël ko. Thiel man laa gëm. saako tàngal du maj dara. soxla ma ko. Ah. soxlawu ma ko kooku daa nekk saako bi. dama suux soxlawu ma ko saako tàngal maa moom bu ñu newoon balaa mboole ñu saako tàngal du maj dara. xamoon na la kéwél de moom ci bawal bawal yi la bokk. waaw waaw loolu la ma doon wax période yooyu moo tax mu ne du bu bëreeg bawal bawal dem jël kéwél booba daa ñemew dafa ñemewut woon moo tax mu waa loolu. yow daal fi mu ni ma ko déggee te laajoo fi kenn koo xamante ni mag la ci làmb yoo say morom rek ngay laaj. man du ma laaj ma ay paa bëgguma daal daal ay paa dañ naan paa la daan mënu ma jox waaw ma jox xale yi nga xam ne dañoo tolloo am doole am tiw am tur ngay bëre daan mais bëgguma daan ay paa da ngay dem ci état bi jàpp ko ñu kii moo ko doole wala kii paa la du daan ay paa xale yu tàng rek ku ñëw baax na. te làmb moo soxla combat wu xale. keroog li nga mobiliser ci làmb ji indi ko bu Tapha Mbeur mobiliser wala Alioune Seye Junior wala Ndongo mi nga wax <laughs> keroog bu keroog ñu xam ne arène nationale lépp dëgg la. non lu garaaw ngay gis barke Serigne Bamba soo ma retouraat stade lu garaaw ngay gis bëriwaat ci saison bi komba combat. non dinaa bëre dinaa bëriwaat loolu moom dinaa bëriwaat. mais bu ma dàlloo ba pare xam nga làmb dafa metti su ma dàlloo ba pare doo nga xoolaat fu ma jëm. làmb nu mettee yow ma woo la fi avant ñuy làmb ji di jub ma lay woo ne la dama bëgg ñu def benn émission man ak yow nga ne ma damaa liggéey nga làmb daa metti làmb liggéey. waaw mais tey ma xaw ma jeudi laa la woo nga ni ma damaa liggéey. loolu laa leen mën a man man nga maa woo man man damaa dafa metti kon li nga may woo peut-être maa ngi feneen. ba naa liggéey bi yàgg dama doon nopp lu di dem ak ñëw rek waaw. ñaata nga def ci mystique ci combat li nga indi maa ngi yow wax de Thielly bàyyi sa caaxaan maa ngi yow wax de ñaata nga def ci mystique ci combat waaw lam loolu mënta ñàkk parce que lam moom mbër moom loolu moo koy matali quoi xam nga loo entraîné entraîné itam xam nga boo bàyyee sa bopp itam mooy loolu gars fu ñu la jaar day yomb barke Serigne Bamba man combat bi dafa ma jëlee gars ñoo def lépp ñi ngay ñoo def lépp nan leen man ma loolu daan parce que daan dem bëre rek laa ci def mel ni def lépp yi ñoo ko def. barke Sëriñ ma kii ngay gis moo jën borog bi kii moo jën borog bi yëpp jox ko gaay gaay ñëw yëngal kon man leen rek laa mënoon mooy gëw après def li ma war quoi am victoire xam ne dañuy kontaan loolu sax mën leen a fay loolu mën leen a fay xanaa da leen di kontaan loo mais mënu leen a fay kon man loolu rek moo nekkoon sama devoir ñëw confirmé bëre jàpp daan te kese da di kontaan loolu sax mais mënu leen a fay. barke Serigne Baba. dafa mel ni. yaa ma gën a xam drapeau ki nga jël. drapeau sëñ Cissé mu sëñ Babacar. waaw. ah waaw moo dinaa ko seede nag que liiru moom liiru na ko moom. te xam nga liiru jaan moom ku mu tag rek mooy loolu. ku baax la Serigne Cissé. Ah, mu di ma gën a ñaanal. waaw ah, comme que drapeau la moom ah te sëñ la ah, mu gën ñoo ñaanal rek ca kaw ca kanam. am nga de. macha allah parce que Serigne Cissé dafa am lu mu wax nee na sama drapeau bi ku ko jël tàkk ba faw rek. te sëñ Cissé kilifa la du wax du waxantu. ah waaw dafa leer dafa leer moom kay yàlla yàlla yàlla jëm kanam rek comme que moom moom ku jël tàkk ba faw loolu la ñaan yàlla dem ci kaw ba kaw barke sëñ Bamba loolu la ñu ñaan yàlla. Mm-hmm. nañ ko seeti mu sànni ñu ñaan loolu du problème waaw ñun ragaluñu loolu waaw. Thiel li ñu amoon ci waxtu mat na lan nga buggoon wax loo xamante ni waxoo. waaw sant gars yi rek ngeen jox gars yi ñoom comme que xam nga ma ak ñoom peut être ñoom xam nañ ci man lu bare bare te ñoo bokk di nekk. waaw nga leen di laaj ba xam waaw nga laaj leen. grand maa ngi lay ziar. nu ngi lay doole ziar. noo tudd. Ndongo seen Ndongo fii sa place la. waaw nga am ak Thiely. Thiely sunu rakk la sunu xarit la sunu lépp la noo bokk juddu wandoo yaru wandoo màggandoo defandoo lépp mu nekk sunu rakk. mook sama rakk bi ma bokkal ndey baa nu nekk ay morom di ànd di def lépp kon lépp noo ko bokk en même temps magam euh, jur sama rakk waaw. nee na combat bi keroog lu ne nga ci def jënd ba dem nga ba jëndal ko ay bologu billet lan la woon jàppale ko wala dompat ci sot la bokk. non du question sot sax mais dafa fekk ne deret moo fort te sa mbokk sa deret lu mu dugg rek da nga ko tee war a fekk si quoi loolu la rek. nga yëgee ni demoon làmb waa demoon naa làmb ja waaw. ñu mhm. gisee mu daan loo yëg. waaw am contentement bu rëy rëy contentement bu mag a mag vraiment vraiment keroog képp ku doomu Refane rek kontaan nga ko mhm, parce que loolu rek lañ ko doon ñaanal yàlla. parce que day booy boo xamante ni dafa baax yaru jox respect ñëpp. parce que boo xoolee ñu ne ñoom ay tofantaloo rek lañu mais respect bi mu nu jox. mooy loolu daal te mënoon na ko ci bañ a fekk nag parce que am na ñu ko gën a ndaw sax ñoo xëy xëy na du lu joxe boobu respect mais moom bu fekkente ne yàlla dogal na xam nga mu nekk sunu rak ba pare jox nu respect boobu xam nga lépp te ak mbaaxam la ak yaroom rek te nit mag bu yaroo moom lépp lu mu bëgg xam nga mën na ko am te ñun dañu koy ñaanal mu dem ba xam nga nekk sampion boo xam ne nii ñëpp dañu koy tudd waaw. mu am ñu mu dëkk. ne Tapha Mbeur. wala Alioune Seye Junior wala Ndongolo yaa ko ko dee wala daa am loo ko dikk pour mu jël ñu non déeyu ma ko ko parce que man du ma faral sax di suivre lam man lam su ma ti demee moom moo ma si yóbbu du ma faral di suivre lam mais dafa fekk ne moom mii ku ko xam depuis bi nu nekkee reefa nekk ay xale ñun ñii ñëpp dan daan nekk di bëre ak moom mais képp ku ko xam depuis xale xam ne dëgër daa mas a nekk ci moom mën a bëree daa mas a nekk si moom te mën na daan ku ne mën nga ko prolonge mais su ngeen jaxasoo nga xam ne moo lëpp doole ñun ñi ñëpp dañ daan dem géej gi entraînement boobu ay vers ay 2000 yàgg na xëy na léegi la ñu bàyyi nii ñu ñoon naa daan an aha boobu nekkagul sax ci làmb ji noonu mais noo daan an di entraîné di def lépp mais ñun ñii ñëpp mënoon nga ko doole sax mais bu la jàppee daf lay daan bari na ñoo xam ne ay ponkol. géej ga mën naa ne bu fa ñëwoon corniche ay jamono booy séeréer yi fa daan ne ñu ti bëri daaw nu ñemee bëreek moom ndax xam na ne bu la jàppee daf lay daan waaw. ngay jaajëf. jërëjëf nu ngi leen di jaajëfal yeen tamit di leen ñaanal seen sit internet bi dem ba nekk ay télévision yu mag a mag jërë ngeen jëf. Amin Thielly lan nga bëggoon wax dafa mel ni waxtu bi amoon. jot waaw di di sant gaa yëpp di leen sant gaa yëpp di leen jaajëfal quoi xam nga di leen félicité bu baax a baax parce que xam nga sonn nañu ci mbir yi trop trop trop trop xam nga te mbir moom ku la bëgg rek moom ngay am benn mu ñëw sonne ci noonu xam nga di leen félicité ñoom ñëpp di leen jaajëfal xam nga sant gaa yi fi fekk yëpp xam nga muy moom di aas ak pap mi ak sama booy bi ñoom moomoo ñu rek ngay seen ak gaa yi ma àndal ñoom assurance ñoom galas sama booy bi waaw ak Abdou. Aliou Mole gaa yëpp di leen bëggee daal xam nga di sant waa Bentali gépp waa Ñaatali gépp waa Colobane gépp bàyyi ma kenn surtout maa waa Bawal nag te combat bi booy xool Bawal Bawal yëpp kenn desul ñëpp a ñëw stade barke Serigne Bamba li dalee ci kaw ba ci suuf ñëpp a teew kon oo seen fay maa leen di sant di leen gërëm ASC Étoile dafa war a finaliste nag donc dañoo war a finalu quoi di leen ñaanal xam nga ci final bi nu am ci ndam lu kawe seen jot ci barke lu gën ci waa sa étoile maa leen di ñaanal xam nga final bi ñuy tuuraal nawetaan yàlla may leen ndam lu kawe seen yor xam nga maa leen di sant bu baax xam nga di sant seen euh, entraîneur Madiab 50 di leen bëggee bu baax a baax du leen wax ne xam na taxawaay bi rafet na waaw ñu leen di ñaanal victoire rek jàmm ci barke Sëñ Fall waaw. jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen li nga xamante ni moom la Thielly wax làmb nag noonu la. Agogo xale la boo xamante ni ki la daan war na laa mën a daan. yokkaatal sa entraînement continuer na ko daan defee ànd ak say mbokk dugg ci làmb def ni nga xamante ne noonu nga ko daan defee lu la yàlla may nga jël ndax ay xale ngeen rek Thielou tamit daan na waaye am na ndam loo xamante ni am na fu mu ko mën a yóbbu ci carrière am tey ñi muy laaj bu laajee Alioune Seye Junior wala Tafa Mbër wala Ndongolo jaadu na ci làmb ndax ku ne def na quatorze euh, am na quatorze onze victoire quatre défaites kon kooku mënoo ko kii euh, mënoo ko dara lu dul jaajëfal ko te xam ne carrière bu baax bu am solo la def mu gërëm place bi ñu nekk. nga xamante ni macha allah euh, as collection moo ko moom ñu ñëw fekk ko fi def ak moom émission bi doon koo xamante ni ku baax la ndax wolof daf ne ku yokkul yaa wàññi ñu leen di ñaanal rek yàlla suñu borom defal leen ci tawféex defal leen ci lu kawe seen jot ba lépp lu ngeen bëgg ci place bi yàlla may leen ko mbokk noonu leen leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ni moo dul ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jaa ngeen jëf.